kon kuréel googu itam professeur Lamine Gueye moo ko jiite moom ñëpp xam nañ ko ci xam-xamam bokkoon na ci ñi jàngal ñu bari wàllu médecine ci Sénégal nañ ko defe woon daaw ren jii ñëwaat nañ siñ bi yeesalaat ndigal ñu ànd ko comité bi sëñ Ousmane ànd ko ñoom ak daaira muqaddamatul xidma bi nga xam ne mooy seyti jumaa ji ak li ko wër ñoo ko ànd ndax xam ngeen ne foofu mooy barab bi gën a jafe ci fi mbooloom mbooloo bi daja ndax ñëpp fi leen moo leen tax a jóg jumaa ji leen tax a jóg ànd koy it ak commission bi yor wàllu santé bi nga xam ne Serigne ab Abib moo ko jiite. ànd ko ak commission communication bi nga xam ne Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma moo ko jite ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la làmboo